bobu xam nga dafa wor ci nim ko waxe ci jataaw sakuur dal di ñew bi mu ñëwee euh, bi mu ñëwee ndaka bi mu egsee ndakaaru xam nga dafa julli ki di waajal timis ngir waja dok bu mu ba nopi ci la ko ben policier ñew dal di koy japp dugal ko ci néeg bobé buñ ko duggalé ci néeg ba لهبمم إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والثبوت طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن ذب أني الماح لولو روخ لولو لو دوين سك آه، نيبا خمغا وخنا تي أي خرباخ خرباخ ينينا جانغنا سورة الأعوان بقراك عمران آه، علي إمران آه، دير صلاة على النبي nee na tartari néeg ba tax na maam jaara fekk ko fa di ko ñaax dal ne ko ah gisagoo dara de ndax keroog nga gane àdduna ci bis bi ci nga wax ni may dégg ne yow sunu borom bi ma bind fas naa yéene jaamu la jaamu goo xam ne nit musu la koo jaamu ci àddina yow rasulullah sallallahu alayhi wa yow mii ngeen ji fas naa yéene liggéeyal la loo xam ne lii kenn du la ko mës la ko liggéeyal te kenn du la ko liggéeyal kon nag yaa jaayante woon lii keroog ba nga ganee ci bés ba may dégg ci rek kon nag muñal gisagoo dara ndax yaa waxoon loolu waaw moom la sëñ Moussa naan nee na keroog gis na fa sun maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara wax jii nag. la waxanteeg moom ca jamono yooya ba ñu xëyee ku ñuy wax Ibra bint Gueye nekkoon jaraaf du gendarme a jaraaf la woon ci déem googu moo ko moomoon mooy se mooy kii jaraaf ja fukki penc ak ñaari lébu yi yooyu ndakaaru yi pencum ca moom Ibra Binte Sill moomu moo ko moom moo doon kilifa bi mu yëgee nag coono bi ñu sonal sëñ bi mu daal di ñëw ci commandant de cercle Dakar ne ko daal léegi dama bëggoon comme da ngeen di xaar bato ñëw ngeen jël ko dugal ko ci ngeen jox ma ko man ma yóbbu ko sama kër ba bato bi koy jël si yóbbu ñëw ma jox leen ko bindee bi mu waxee loolu commandant bi commandant de cercle Dakar kooku dal di koy yëgal gouverneur gouverneur ne ko ah ki am audience su def loolu de xanaa boromu cër la waaw waaye euh, euh, laaj nul ba xam maanaam ban cër la yore bi mu ko waxee ne ko mooy jaraaf fii mooy jaraaf yi ci déem moo yor ci déem danga ñaay cokkeer foofu yëpp moo moo moo moo ko moom mooy kilifa ak lébu yéene foofu mu ne ko léegi da nga koy woo mu ñëw su àttanee gàddu ba kanam bu dawee ñu jàpp ko moom waaw bu ko defee daañ ko ko mën a jox ñu woo Ibra Binte wax ko loolu mu ne bu dawee jàpp leen ñu daal di koy fab jox mu daal di koy indi këram foofee ci jàkkaarloo kër sëñ Modou Moustapha féete sow mu indi ko foofu ba mu ko indee daal di dem ci ay jabar ñu bëgg bëgg ñu jabaral ko sëñ bi ba sëñ bi du génn waaw ba sëñ bi daal tubaab bi du ko da ko ñeewant rek yàlla dogal ba sëñ bi julee ba ba ñuy julli timis mu indi njabar ga di ko suul sëñ bi woo ko mu ñëw mu ne ko li ngay def de xam naa ko waaye booy boo bàyyi li may dalal la sa nag mooy yaa may gunge bu may ñëwit yaa may teeru fi dindi ak satala jox ko akub dokk dindi ak satala akub dokk jox ko akub der bu mu doon jullee ber der bu bokk ji muy jullee rek waaw déedéet ab sajaada la sajaada la ko jox kero muy dem ba ñu toogee ba le 21 septembre ci lañ ko dugal ci gaal gi gannaaw bu ñu tisbar ba nopi Ibra bint gunge na ko ba muy ñëw itam téru nako waaw mirum Ibra bint شكر لم تعلو والوايد كسر لو شكر مني بعد حاسبا eh, bokk jullit yi bokk taalibe yi Jamiu Taawun la taxat la wër soli yi eh, fii leen leen di a tàggatoo nag ci li nga xam ne mooy band bu njëkk ci waxtaan wi nga xam ne Cheikh Moustapha Abdourahmane doon nañu ko defal eh, ci histoire yoonu Mouride xanaa di jox daja rek ca bandum ñaareel ba incha fi ñu yem Eh, fi lañu fasiyene fas yéene tàmbali eh, ba ni waxtaan egg ak jam xanaa di leen jégalu rek ci mboolem loo xam ne gis ngeen ko ci wala ngeen dégg ko te gërëm loowu leen ko ngeen xam ne sunu mat dëgg la jërë ngeen jëf لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلام لأنك إمام رسل قد أنهم تلاقوك في الإسراء والكل خسرنا لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الأخلاق ما أهيس الكلام لقيت من الأهداء ما دالنا مهار تكليس لتيس بهم فلا لمن يا يقي من كليلا ما لدا حتى يا بشير تطفى والفقر والمهلا لمن خادوا جن لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختنا لك نار من إلهي صلاته عليك مع تسليم يا من مع الكملين الله ينليك بالمصطفى السلام خادما لعبد بي أسرى وقد جاء وساسما